salut la famille j'espère que vous allez bien gannaaw bu ñu leen nuyoowee jox leen seen wàccuwaay tey ñoo fi ñëw nar a wax ci benn sujet bi nga xam ne nii doon na sujet bu sensible ndax ku nekk gis na vidéo yi circulé ci réseaux sociaux yi ay xale yu ndaw yu nekk seen biir école di def lan di def ay vidéo noo laa ko mën a tuddee di def yëfu saay-saay muy loo motive yi am école Sacré-Cœur mais avant ñoo dugg ci sujet bi dañuy saako képp ki nga xam ne nii yaa ngi seetaan suñu vidéo te abonné suñu seen YouTube bi nga abonné ci aimé suñuy vidéo wax ñu saxalaat ci commentaire yi mais tey jii nii dañoo gis ay xale yu ndaw yoo xam ne nii ci seen école barab bi nga xam ne nii pour baraw sàkku xam-xam la barab bi nga xam ne nii nit ki daf fay dem pour ñu yar la pour ñu jox la éducation bu baax bu nekkee foofu noonu ngay sàkkoo éducation foofu ngay defee lu bon y a ku nekk xam suñu système scolaire bi dafa am benn matière bi nga xam ne ni dañ koy jàngal xale yi muy Ecofam xale yi nga xam ne ni ñu ngi am à l'âge de quatorze jàpp quinze ans ñu leen di jàngal naka ngay gisee say règle ban période nga koy gis ñaata la sa règle di durer ak naka ngay sëyee te mën a protéger wu ay matières yoo xam ne ni ci wàllu néegu sëy lay jàngale te ku nekk xam na ne xale dafa dañ kumpa ku nekk xam na ne doomu aadama ci boppam moo dañ kumpa du ma ne problème bi suñu système scolaire bi la mais tamit gannaaw école bi daf leen koy jàngal mu doon ay matières yi nga xam ne nii sénégalais ci boppam sañu ta taxaw ak parents parents di ko expliquer yenn domaines yi nga xam ne nii jëm na ci néegu sëy ndax kersa bi tax kon tey bu ñu gisee ne xale yi dem nañ bay essayer li nga xam ne nii mooy lan lu jëm ci wàllu néegu sëy muy pornographie loolu laa ko mën a tuddee ndax tey jii nii naka ngay mën a simmeekoo comme ni la sa yaay juree woon ngay nekk di def ay yëfu saay-saay en plus nga am fitu filmer ko ba mu wër àdduna bi tey jii nii ñooñu naka lañ mën a xoolee seeni parent ak seeni parent gàcce bi nga xam ne nii teg nañ leen ko ndax ku nekk xam na ne Sénégal dëkk bi dafa metti yow nga jël sa xaalis yóbbu sa doom ci école mu tàggu la ne mu ngi jàngi ji nga fayal ko jëndal ko lépp li nga xam ne nii mooy fourniture lu ko war moom amul lu muy def lu dul lan dem ci école bi nekk fa pour jàng pour jël ay notes yu baax pour ëllëg mu dimbali la nekk di fa def ay yëfu saay-saay di fa jouer porno ba muy wóor réseaux sociaux yi doon na loo xam ne nii lu ñaaw la ndax tey jii nii tamit gis nañ ay nit yi nga xam ne nii jugoon nañ bu yàggul ne dañuy sensibiliser xale yi nekk ci mbedd bi xale daara yeeg yooyu noonu tey jii nii li ñuy dégg ci école yi est que ñu ngi koy dégg ci daara yi est-ce tey jii nii warul tax ñu dellowaat suñu xel xam na ne ay sénégalais lañ ay jullit lañ jël suñu xale yi yóbbu leen ci daara yi même bu nekkee ne jàng nañ français ba wàcc ñu jël benn temps jël benn oustaz mu jàngal leen ñu mën leen xamal seen diine lan la wax seen diine lan la wax ci wàllu li nga xam ne nii jëm na ci njaaloo wala ci yëfu saay-saay yi nga xam ne nii tey jii nii ñu ngi koy gis ci réseaux sociaux yi ndax xale tamit il faut ngay nekk di wax ak moom il faut tamit nga nga koy fàttali ndax boo jëlee benn oustaz mu koy jàngal dina ko xamal bu baax a baax diineem lan la wax mais boo ko bëggee bàyyi ci école bi xale bi bu jugee ci école bi mu ngi ñëw ci këram bu ñëwee ci këram lu muy def nekk ci téléphone bi dugg ci réseaux sociaux yi Instagram wa Snapchat WhatsApp fu nekk mu dugg fa. te amul benn éducation bi nga xam ne nii préparé na ko pour naka lay comporté woo ci li jëm ci réseaux sociaux li jëm ci internet xamal ko diineem ndax tey jii école français yi mun nga jàng ba jël say diplôme ba am diplôme yëpp yi nga war a am ci école yi. mais du tee tamit sa comportement dina des mais boo ko jëlee nga dugalal ko ci daara dina ko jàngal lan naka lay nekkee ci àdduna ndax daara moom dina la yar dina la xamal sa diine dina la xamal naka ngay jaamoo suñu borom te dafa doon li nga xam ne nii tamit war nañ ko boole ci suñu système scolaire bi ndax da ngay gis ñu naan xale yi dañuy nekk di traîner ci mbedd beeg di yalwaan yalwaan gi ñuy yalwaan kenn bëgg ko mais tey jii nii tamit daara foo jaar di nga toroxlu ndax ku nekk jaar nga daara te boo jaaree daara li nga xam ne nii jaara daf lay defar ndax bu ëllëgee foo dem ci àdduna di nga fa mën a nekk mais en plus tamit parents yi war nañ toog di waxtaan ak seen doom yi ndax da ngay gis Sénégal ba àdduna bi sax lay wax xale bu ndaw bu am treize ans quatorze ans quinze ans téléphone te ku nekk xam na ne internet li fa nekk ndax internet lu baax mu nga fa lu bon mu nga fa mais tamit boo xoolee xale yi ci lan la ñuy passe seen si TikTok la ñuy passe seen temps te lu nekk nga fa kon tey jii nii tamit jàpp naa ne foot bi tamit suñu système scolaire bi ci la bokk de mais parents yi tamit ñi xam ne nii amuñu temps ndax lan ñu ngi daw dépense ñu ngi daw lu ñu fayee lu yaas amuñu sax jotu toog waxtaan seen doom amuñu jotu sax toog di contrôler seen doom ba xam mu ngi am ay not yu baax école ba xam seen comportement doom gis nañ dara lu ci soppeeku faute bi tamit parents yi ci la bokk ndax xale tamit moom da ngay rek mais. wax kase doyul il faut ngay toog di leen surveiller di xool bu baax a baax a baax sama gars yi bi tey loolu la woon di leen sant di leen jox dig daje ci beneen yoon ci beneen vidéo jërë ngeen jëf